appréciation bi ma ci def mooy la montée en puissance du football sénégalais li ñu gis ci équipe nationale yi moo bu ñu xoolee club yi xam ne liggéey bi moo ngi doon luy feeñ seulement que c'est regrettable pour euh, Étoile Lusitana ndax équipe la boo xam ne joué na match bu correct et HLM euh, dékku ko ci dernière minute yi HLM fexe trouver euh, une solution pour marquer ce but là et ko en coupe du Sénégal. waaw ndax HLM tey boo xoolee Étoile Lusitana da ngay xam ne footballu académicien la ñuy joué équipe yi nga xam ne dañuy joué footballu académicien toujours pour le gagner il faut que nga dékku leen xaar leen ñu joué tactique euh, yor seen système technico tactique yow nga essayer leen a dékku boo leen dékkoo trouver solution rek pour man génn ci résultat bi ndax tey équipe la yoo xam ne même boo demoon ak ñoom tiro bi tamit mën nga risqué mais fexe la jëngu rek def un match doom boo amee loo xam ne war nga koo regle nga régler kook ñoom pour jël résultat positif bi loolu la HLM def tey ba am victoire bi ci kawam. des talents des talents des talents yoo xam ne nañu continuer liggéey am na ci ñoo xam ne boo xoolee comme ni ma lay wax étoile lusitana toujours aspect académique ngay gis ci ñoom ce sont des jours plus près ñoo gën a pare nag. ñoom ñoo am défaite mais ñoo gën a pare waa HLM pour affronter l'autre niveau muy tey football bi ku jouer au Sénégal tu penses à l'étranger tu penses au football européen tey bu en tant que recruteur ou agent du joueur bu may miser souvent ci joueur étoile lusitana yi laay euh, laay miser mais n'empêche pas que ñoom it aussi tamit war nañu gën a continuer am réaliste ndax football bi rafet na lu muy rafet rafet tamit nañuy dem am résultat ndax coupe du Sénégal la finale loo mën a football te eggoo ca dafay xaw a handicapé lu baree baree baree bari ndax finale coupe du Sénégal souvent ci la yenn joueurs yi di arrivé en équipe nationale du Sénégal recruteurs yi tamit ci la ñuy gën a bis la boo xam ne daal ñëpp a ciy daje moo tax nag c'est regrettable pour eux comme egsi wuñ ci te ils sont des joueurs aguerris. li ma leen di conseiller mooy un peu problème bi fi a mooy les dirigeants de club ils connaissent peu la gestion des footballeurs loolu mooy seen problème parce que président de club peut être le la personne qui demande à son joueur ou à ceux qui veulent son joueur li mu leen li ñu koy tegal sur la table mais au joueur avec son son environnement et son staff le président dafa war a toog joueur bi bu mu ko imposer li muy def na xaar liñ koy indil mais souvent man en tant que qu'agent de joueur ou recruteur damay ñëw ci yenn dirigeants yi ma di leen laaj naan leen seen joueur ñu naa ma loo ma man li ma leen indil du ma leen ko mën a wax ndax li tax du ma leen ko mën a wax secret la bu ma leen ko waxee ñu demal seen bopp foofu nag euh, le problème est que xale yi à l'intérieur du Sénégal la gestion moo posé wu problème ni ñuy def ba yóbbu leen ñun ñi nga xam ne ñoo doon les recruteurs surtout les gos qui se sont montrés en équipe nationale du Sénégal bu ñu defut attention def équipe nationale gagné coupe d'Afrique taxut a doon professionnel. instant bi liñ naa le tobaab di wax il faut frapper le fer quand c'est chaud instant bi ci ngay choisir la chose juste surtout ñoom bu fekkee ni ñooy former boy yi en collaboration avec leur famille booy bi buñ ko war bu waree am agent. bu ñëwee tamit ñu jàppale ko ci man en tant que sénégalais dama jox benn cër boo xam ne les dirigeants bu ma neexoon directement damay dem ci famille yi wax ak les familles pour gérer leurs enfants ndax loolu les norme de la FIFA moo ko imposé jour bi mën na xool ku ko neex mu def ko agent mais les dirigeants nañu xam ne bu buñ leen maye lépp tamit liy facilité mu booy bi du ni ñuy liggéeyee ndax ñu ci bari dañ naan la loo andi tegal ma ko sur la table nangam nangam li nga andi ça dépend boo moomu jour bi mënoo andi dara jour bu fekkee ne agent bu ne bindal nañ ko ci këyit ba intermédiaire bune ne bindal nañ ko ci këyit télescopage day am en Europe dans les clubs te clubs yi dañ naan le gosse là ceux qui sont autour de lui ne sont pas sérieux et ils vont nous mettre en difficulté mooy tax boy yu ci bari di lamb di am problème mu dem dans les clubs européens